asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki taalibe yi rawatina sama bokki taalibe yi dëkk Touba seen bokkum taalibe moo leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu di leen wuutu ci kàddu yi ngir xam ne kenn ku ne bu ko mënoon waxal boppam moo koy wax ngir lii fi xew yàpp jàpp naa ne képp koo xam ne war may dëkk bi ñor na la am nga ci xar ma yëkkati sama kàddu nag gannaaw bu ma siyaare Cheikh Mouhamadul Muntaxa déglu kàddam yi kàddoom yu jëkkee ak yu mujj yi di tàllal samay loxo di sukk fi suuf ci kanamam di jéggalul murit yépp yi tooñ ak yu tooñut ndax murid yëpp benn bopp lañ lu ñenn ca def rek mel na ne ñee ca des lañ ko def kon nag murid yëpp a ngi ànd di la jéggalul lenn ti murid yi tooñ te jaaxle teg leen ko ak njuumte ak ngëlëmte ngir dafa am ñoo xam ne attanuñ xiif ak yenn natt yi loolu rekk leen ko teg waaye lii xew ñëpp ko yëgandoo muy sëriñ si muy sëñ daara yi muy liggéeykat yi muy ñëpp ko yëg waaye ñëpp yëg sëñ bi ak ruus sëñ bi tax na kenn ku ne muñ muñ gu rafet ñoom nag ngelimte li leen dal ngelimte kepp la waaye jaawuluñ sëñ Tuubaa ak dara booluwuñ sëñ Tuubaa ak dara taalibe sëñ Tuubaa lañ fi ñu juumee nag la ci jiitu mooy ku kilifa gu mel ne yow bu amee lu ko jaaxal dafa war a ñëw ci yow te yow ubbil nga sa bopp bunti taalib bunt say buntu taalibe yëpp wàcce nga it ba tolloog ñoom bu ñu waxee nga déglu leen bu ñu noppee nga tontu leen te lu ca war da nga ko def kon la gënoon mooy ñu def délégation ñëw jàkkaarloog yow wax ak yow wax la fi ñu toll xamal la ne àgg nañ ci buñ xëyee duñ am luñ lekk te dañ daay liggéey mënatuñoo liggéey ba am na ci ñoo xam ne dañuy taxaw di yalwaan te duñ gis sax ku leen sarax ndax duñ gis ku leen tane loolu di tolluwaay bu metti boo xam ne mën naa tax nit def lu mu a def mais jàpp naa ne xam nañ ne war may dëkk bi weesoo na di fi ñaxtu ndax mosu fi am te buñ jëmoon ba am lu leen naqari di ko wone mën nañ ko wone ci geneen anam mooy tudd yàlla jàng xasida yëkkati ca kaw ñu yëg ne ñii daa am lu ñuy wax dikk ba ci yow ne la lii moonu metti te yow lañ am boobaa danga ko saafara foofu lañ jume te jaaxle leen ko teg ak matadik doomu aadama ak lompañu doomu aadama waaye sëñ tubaa rek lañ yaakaar mu des nag bañ ko defee te defee ko noo xam ne njuumte la am ca boo xam ne rax ci biir mbooloo mi yàq la ñuy di nit ñu yàqu dikk di yàq waaye nag ni nga ko waxee mbàkke sëñ tubaa kenn mënu ko yàqal ku yàq sa bopp rek nga yàq kon nag ñi nga xam ne bokkuñ ci rax boobu yi waaye ay lañ te dañu amoon lu leen naqari ñu faje ko nuñ ko war a faje te njuumte tax te mosu fi am ñooñu lay jéglul di ko jégluwaalil murid yëpp Mbàkke te xam ne ñoom de dañoo xamul ne booba yaa ngi ci ñoom ndax li ngay lijjanti ci suuf te bëggoo kenn yëg ko bu sottee jafe-jafe yëpp dana jeex te li yo lépp dana yolom te loolu des na tuuti ñu xam ca dara waaye nag umpule ga tax na ñu bëgg a fajal seen bopp jaaxle ga tax na ñu bëgg a fajal seen bopp lomp ñu ah doomu aadama tax na bañ gëlëmee xamatuñ fuñ jëm ñu bëgg a fajal seen bopp waaye mbàkki bu leen ci topp mukk ki fi nekkal dafa waxoon boroomam ne ko jullit yi day fa innahum wa in ko yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ko buñ demee ba mooy la it ak càggante la waaye bokkaali wuñ la kenn waaye maa ngi lay xamal ne yow itam taalibi sëñ Tuubaa yi tey buñ demee ba def lu neexut sëñ Tuubaa ji dëkk bi taxul ñu yemale siñ Tuubaa dara sëñ Tuubaa rek lañ am boolu ko ak dara kon nag noo ngi sukk di jégglu di tuubal mboolem ko juumoon mboolem ko tooñoon ngir jëmmi sëñ Tuubaa samer xaju ci ñoom te ku xam sa mbégte xam ne sëñ Tuubaa yërmande yàlla jëm doon da caa sàkk yërmande joo jox la ba ku xool sa xar kanam rek mbég lay njëkk a gis mbégum kese nga buñ jëmee ba gis sa xar ne yow mii tàng nga mer nga te loolu kenn mësu ko gis daanaka ndax lu naqari yàlla rek lay naqari xotti war may dëkk bi rek tax ñu gis sa mer xotti war may yoon képp ay tax ñu gis sa kon nag xam nañ ne tooñ nañ la buñ mënta ak yow jéggalu la kenn ci ñoom mi ngi lay jéggalu ci seenu tur ñoom ñëpp ñoo ngi ñaan nga leen te bañ leen topp dara ndax sa mer xaju ci ñoom waaye nañ delloo si suñu xel ñun taalibe yi te xam ne liñ mënta ñàkk sëriñ bee ko yor kon nan xam niñ koy wute niñ koy wute ci barab bii mu ne ñu warmaal ko ngir moom njabootu boppam gii ñu xoolee leen ko war warmaal leen ngir moom te bañ a xool ci ñoom dara te jàpp leen ngir Sëñ Tuubaa kenn ku ne bi ngay ñëw ci dëkk bi da nga am loo mënta ñàkk di ko wut ci sëriñ bi moo tax nga ñëw bàyyi sa lépp gàddaay ñëw fekki Sëñ Tuubaa kon nag loola koy tax a ñàkk lu ne war nga ko moytu loola koy tax a am lu ne war nga caa sax Mbàkke Bàlla noo ngi tuub di tuubal taalibe yëpp di jéggalul taalibe yëpp yow li la war lépp def nga ko ndax lii bi mu amee ñëpp ko yëgandoo ci ñépp la metti sëriñ si ko gën a yëg ñëpp dongay daara yi sëñ daara yi liggéeykat yi ñëpp am lu leen metti kenn ku ne am na looy dund loo xam ne mënoo ko wax kenn waaye da nga da nga téye sa ngor rek di muñ waaye nag ko xool ci yow rek mën a muñ lu bari ndax fàttewoo kenn te yaa ngi bàyyi xel ñépp ndax yow de ba nga yëkkatee la nga man te fekk la ci sànc bu rëy muy université bii nga ay milliards yu dul jàll teewul nga yëkkati ñaari téeméeri million jox ko nguur ne nañ ko dimbalee ci lii ci pañ mi da ngaa wëlbatiku waat fab dund bu doy sëkk jox ko jàngalekat alxuraan yi ndax dimbali leen wëlbatiku wat fab dund bu doy sëkk jox ko jànk xasit jànk jànkati xasit yi xam ne mënatuñoo génn ngir dimbali leen wëlbatiku yëkkati dund bu bari jox ko waa dëkk bi gox bu ne ñu dem ci fa dëkk ba yam tàmbalee fa jëm si jumaa ji jox ko ñu doy ñu séddale ko nam ware te loolu yemoo ci mboolem koo bokkal sëñ Tuubaa da ngay dem di leen seeti mboolem koo bokkal sëñ Tuubaa da ngay fab sa addiya di ko jox ngir jàpp ne waajuram sa waajura bu fi nekkoon da ko war a jox addiya kon nag da nga matale ji fépp bàyyi xel ñëpp yëg ñëpp yërëm ñëpp kon nag na nga toppe woon say mag ak say waajur ba egsi fii ne lañ la war a toppe lii lii xew day léb la woo day lii lii ñu la lii ñu lii ñu def tey day léb la woo ko bañ war la koo fay ndax yow day ba da ngaa topp waaga sëñ Tuubaa ba gisatoo leen ba fi sëñ Baara nekkee nga topp ci gannaawam bàyyee ko boppam bàyyee ko sa bopp dinu wonu yoon nun ñi nga xam ne say rak lañ ba xëy Cheikh Mouhamadou Cheikh Cheikh Sidi Moukhtar ne fi nga def noonu bàyyee lépp doon jëwriñam nekk suñ gannaaw dinu wonu yoon dinu digal dem ba doon sëñ Tuubaa nag kon nag li war mooy la nga leble woon ci say say mag ak say waajur taalibe yi fay la ko bokk yi fay la ko bokk yi sant nañ gërëm nañ bokk yëpp a ngi lay xool bët boo xam ne seen xool sedd na seen xel dal na waaye taalibe yi ñi jaaxle woon ba tax ñu def lii nañ dellu tuub te delluwaat di wéy ci ndigal dëkk bi dëkkum ndigal la dëkk la boo xam ne kenn waru fee ne dafa jël sa bopp xam naa ne xam ngeen ku njuumtee taxoon ak ngëlëmte ak jaaxle ba xamatu leen lu ngeen def moo tax ngeen def ko waaye du warta doon jikko yi ko dëkk ci dëkk bi waaye nag nan àndu nun ñëpp jégalu Cheikh Mouhamadou Mountakha te wéy ci ndigalam te bàyyi ko xel te jàppale ko ndax kilifa la gu jafe kilifa goo xam ne dafa wàcc ba tolloog yow di le déglu boo ñëwul mu fekk si la boo amul mu jox la loo ko joxe mu defal la ko ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi kilifa gu am ku mel noon ku ko am dang koy fonk te sakkanal ko te bàyyi ko xel kon nag noo ngi ànd ñëpp di tubaat di jégglu di ñaan nga jéggal nu sa bëtub yërmande nga xool nu ko jéggalu nu sëñ Tuubaa miñ tooñ te nga nekkal ko fi maa ngi jéggalu ñëpp waaw noonu noonu rek la demee dañu bu baax a baax te xam ne eh, bi xewee ba léegi eh, la ma ci man sama kéem kattan maa ngi ca te maa ngi ngi fi lu mën a ñëw rek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 war leen li mbir mi ni mu demee il faut que ñu borom xel lañu il faut que kon itam euh, ci jëy yi jëm ci jëyee moom amul njëriñ foofu laa ko tënkoon mujj foofu laa ko mujjoon tënk nañ góorgóorlu noonu wéetal yàlla rek te doylu Sëñ Tuubaa waaw ndax lu mat a fàggu tey gale fàggul nañu ko lu mat a ñaan ci lu musal fa ñaan na ko ci boromam te nangul na ko waaye nag am nan wartiif masooli bu rëy mooy nag nan ko nekkal Sëñ Tuubaa neexul a nekkal <laughs> sëñ Tuubaa nekk la nekkal ndax dax ndax ndax sëñ Tuubaa ñëw kenn kenn kenn ci boromam amul menn mbindeef sëñ Tuubaa ñee amul